होता होता कौन सा होता होता होता कौन सा होता होता होता कौन सा होता होता होता कौन सा होता होता होता कौन सा

dafa nekk ci man dama ko juddu waa tamit tamit waa tamit tamit tamit tamit waa tamit tamit waa tamit ay tamit tamit waa tamit waaw waaw sala yaa ngi may xool man daal man daal macha allah fàttuma la tayuma ko dafa ne ci man dama gën ci dura tamit tamit wa tamit tamit tamit tamit wa tamit tamit oh. wa tamit tamit tamit tamit tamit waaw mi ngi noonu tey nag dama bàyyi waa seen gold nank doxantu Grazilia ci sama xarit boobu ma dem Niang xam nga mu sumi jaaroom jox ma décoré ma ko dafa sumi ay jaaroom jox ma ko décoré ma ko <laughs> ne demal jaaro yaa ngi noonu xale yi sàjj leen ko bii benn la woon amatul waaw prix bi moom nag duma leen ko ko wax ndax xam ngeen ni lii ko gis gudd na diis na oh cuum yaa ngi laaj ci ay cinq millions job kaaw oh <laughs> uyu ma nag or dafa ànd ak or dafa ànd ak kii euh, bokk ci jigéen ci carrière wu jigéen man bëgguma jigéen buy dundoo ba dee te doo takk ngalam ma ne man wóor ma ko ma ko takkal maa ko takkal saa boobu xanaa maa riis oh, oh. may nag sama kër kër ga du gis ngeen talam nu mu toll du gis ngeen ko macha allah xolal am nañ revolver. may building donc xoolal ñoo ngi nii dress in avec ma tata ñu jaay la waxtaanal la servir la ñu naan man daal je suis ici et je vais vous ma jënd yëpp dara du manqué mi noonu bisous seen dindi magasin yu baax ensemble brodé ànd ak col tabaski daal fii am waaw man ma fi loolu lu yu gis ngeen ko noonu presque trois cent presque quatre cent mille vues te cinq cent mille vues la ñuy jëm en vingt quatre heures en sept heures de temps quatre cent mille vues xam ngeen ni loolu yàlla ñi mu may ci mim réew bëriwul kon xam ngeen ni que man j'ai un bon cœur. neex naa defar jekk naa man li ma teral sama ndey xamul naa ne yàlla daf may teralee gor may sa biige waat dafa rawaat oh ma ne sa baay jëlul réew mi rek fooyee ñu waaw ma ne APH bi wadda ko def OCI bi wadda ko def non sa baay defar réew mi man maa la bëgg pire te yàlla bu ñu ca dugg may sa biige nee naa la nekkoo Dubaay rek di ma seytaan non baby you send me the money you take care of me you buy me gold you buy me car waaw loolu moom dama koy teer xam nga waxtaan dëgg ci la te ay gor bu ñuy ànd dañuy waxante dëgg mag yéen dañoo ànd ci réseaux sociaux yi ndeysaan te ku xool samay video il y a dix ans ngeen xool tey xam ngeen ni am na changement réseaux sociaux pour développement la léegi yow bu dee danga may xool sa xol di bon di bineegar di puuj paaj mais nga bàyyi di ma xool ndax man gis ngeen ni ma ko téewee nii ak golden yi laa ko nar a def di xëy di sàjj ay or xam ngeen li ngeen takk xew man laay ko liggéey est que yëg ngeen loolu lii ngeen takk di dem xew man loolu laay liggéey est que xam ngeen loolu xam nag sama bopp xam sama valeur jëndal sama bopp yu baax mooy sa biige waat di fara yow nekkoo du bàyyi di ma xool di ko xool samay vidéo il y a dix ans xool tey xam ngeen ni am na changement réseaux sociaux pour développement la léegi yow bu dee danga may xool sa xol di bon di bineegar di puuj paaj mais nga bàyyi di ma xool ndax man gis ngeen ni ma ko téewee nii ak golden yi laa ko nar a def di xëy di sàjj ay or xam ngeen li ngeen takk xew man laay takk di ko liggéey est-ce que yëg ngeen loolu lii ngeen takk di dem xew man loolu laay liggéey est-ce que xam ngeen loolu xam nag sama bopp xam sama valeur jëndal sama bopp yu baax mooy sa biiga waat di fara waat yow nekkoo du bàyyi di ma xool dëgg ma bëgg et c'est officiel man maa leen ko annoncé fii partagé leen snap bi madame Wade waaw li am am na ñëwara yooyu góor gi yooyu nañ ko ñëwal xutba xutba nañ c'est officiel madame Wade nga am foofu te xam naa ni confirmation ngeen di wër confirmation bi nag mi ngi ñëw ne naa leen nekkul Dubaay rek di ma seytaan gis ngeen lii musul am ci man mi ngi noonu musuma sàjjee or 15 jours teg la ko di jënd or chaque jour nga jënd valeur teg leen ay facture ay 2 millions ay 1 million kenn xamul man daal mu ngi noonu. man xamoon naa ne yàlla suma ma fayee sama xol fii toj mais mooy leen nag ma nekk fi première dame ah moo fi nekkee première dame ah ña ma nar a tëj loo bëri ak maa bonte sa xor ah <laughs> Macky deful dara ñëpp laay buubu tëj leen ku wax ma ne la may madame Wade xanaa wax neex na oh je suis <laughs> la femme du président oh là là là là oh là oh bul wax tuur yow waxal Wade rek bu dee Ablaye Wade la ma jël bu dee Sindiély Wade la ma jël bu dee Viviane Wade la ma jël ay bu dee Karim oh oh oh la femme du président <laughs> excusez-moi comprenez mais comprenez mon émotion je suis devenue la femme du président <laughs> hey oh Seigneur c'est toi tu bénis et quand tu bénis, qui peut Quand tu bénis, qui peut maudire Oh Oh, oh, oh, la femme du président. <laughs> Excusez-moi, comprenez, mais comprenez mon émotion. Je suis devenue la femme du président. <laughs> hey! Oh Seigneur! C'est toi qui bénis. Et quand tu bénis, qui peut Quand tu bénis, qui peut maudire Oh man ñooru gay naa ko daan jël duma koy baadoola duma koy ku ñaaw duma koy ku réew duma koy ku dégul yàlla diwaal yee